ñoo xam foo ko féete ak fu mu la féete loolu la ca alquran jublu moo tax dammul uxuwa afdaq min damin kadibin ku mooy xamis bu jëkk bi xamisu ñaareel bi ramz la yàlla def ciy wane ni ndekete maandu moo ëpp doole pouvoir in kaana xamisuhu قرب من قبل فصدق وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دهر فصدق وهو من الكاذبين أفيد بي لولو لا يعلم مودون وانني ديكتي نقول بو منا أم بوفار بو منا أم تشير بو منا أم بو ماندول كما نولو بوشير loolu la feeñal rek moo tax imraatul aziz mooy jabari buur waaye topp na boppam ba mandoo jël yuusuf topp na boroomam ba faf maandu maandoom yàlla def mu not pouvoir waaye fekk na pouvoir yegg ci ñoom foo xam ne mënatuñu dellu gannaaw moo tax il fallait ñu denc ko moo tax chemise ñaareel bi loolu lay jàngale moom cër boo mën a am nga mandoo ko gën xamiisu ñetteel bi nag li muy jàngale mooy nekkee nubuwa moo man jureel moo man jureel donte ki la jur nabi la waaye bu sa nubuwa ëppee bosan تايتك اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا بصم مضب بنجرين يعقوب وتخ الشك في الإيمان amatul solo a chaque filiin tar moy wax ji motax tax fan yi passé rek gis nga yàlla lu muy def dañuy waxtan mag serigne ci téléphone ñu waxtan ba nopi mu mu jé phrase bi góor gi waxoon te moy je je n'aime pas ses amis je n'aime pas ses amis serigne sunu góor go tedd gi di ko ni yàlla manul xarit waaw waaye tabarkal la xam li nga am ak fayda jëmu laaj dafa am solo Abdul Malik ibni dafay waaj pour wëj ji boroomam mu woo Walid bi nga xam ni moo ko war a doon ni ko maa ngee waaj pour dem wuy ji sama boroom lenn rek laa lay yëgal mun ko am mun ko bu ma dem mukk nga nekk fii bët ni bët di jooy parce que bët ni bët di jooy dafa xewi kon ko bi ci des moo di donte yaay donn arche yaay donn xilaafa gi bu ma gis mukk nga solu col guy wane ni danga am loo doon solal nu nuroog ñëpp te bu ma faatoo ba ngeen yóbbu ma ngeen denc ma ba noppi mu ni ko am ah, ni ko bàyyi leen maag sama soxla te ngeen dellu ci seen soxla ngeen néew buy wax naan bàyyi leen maag sama soxla kooko xam ne fu mu jëm fan la xam na it li koy xaar lan la ni ko rek ngeen dellu ci seen soxla te may ngeen bàyyi mag sama soxla waaw moo tax liñ naan ko ñeeñeemul boppam ah sunu borom a koy wax di wax ak adduna naan ko yaa dunia murri ala awliyaa yi waaw wallaay ndeysaan waaw yàlla di wax àdduna ni bul neex mukk pour ñi ma séddu parce que boo neexee ci ñi ma séddu rek ñu fàtte ma te àdduna du leen njëriñ maa leen di jëriñ moo tax je n'aime pas ses ko wax lu mel noonu booba la ci biir leneen la ko defee kon nag ba tabaarakallahu sunu yaay yi ci yi ñu jële ci ñoom donte nekkuñu ak ñoom ci benn cercle mais am na lu nga xam ni ci ay xiyam lay delloo ci ay valeur lay delloo waaw valeur yooyu leen moo tax ñu junj li ñu junj ci soxna Safiya wax na leen léegi ci bi ñuy jullee ni yàlla xam na ni ci suba la bokk bi ñëw ni ma mbokk sàngam daf fi wax ni dafa gis soxna su fi biig mu ngi sàngoo benn kaala bu weex waaye wax mi nañu wax Moustapha mu jël benn kaala bu weex ne dafa am benn soxna bu jigéen bu ko moom ko ma laaj waaw benn soxna ñu ni nee na bu jotee di nga ko xam ñu ma waxee yóbbante bi ma jox xale bi ne ko mu dem wuti kaala bu weex bi ak bi ñu may téléphoné ni ma soxna si toog na presque benn la matul sax trente minutes waaw ma xam ni loolu genre la waaw ba tabarakallahu gaala gaa ngi nii indaale naa ko waaw maa la ndeysaan te sëriñ Cheikh moom ñu waxoon ni gaala nag këramse la waaw am na lu ko mag ñi naan doye mu mel ni kon nag moom xam naa tabarkalla la ku ne am ni ngay gisee parce que ñi ñu yor ci xaqiqa ñi ñu yari ci wàllu falsafa bokkuñu gisin waaw ndax benn philosophe dafa gis ñu yor benn jaar teg ci benn néew di ko di ko yóbbu muy xool ba jàgg mu ree mu ni fii la nit mën a yem ak yàlla ndax ku jël ka nga ka nga gën ne moo xam muy mbokk moo xam muy xarit nga àttan ko lëmas nii rek jëme ko ci cellule boo xamul luy am gannaaw cellule ba mu ngi wóolu yàlla fa la yem waaw waaw nga tax na tabarkal la ku nekk ak la mu xam waaye bu boo nampee ci mag ñi doo tuutal dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dañ def bu gisee néew mi di ko yóbbu rek mu jóg taxaw ba ñëw bi romb dem mu soog a defaat lu muy def benn bis benn néew di ko romb mu jóg taxaw ñu ni ko kan, ah jarul taxaw parce que yahut la mu ne alay set nafsan alay set nafsan est ce que du bakkan bu yàlla bind mu ni ko waaw mu ni yàlla xàmmeetul ndax yahut la wala leneen ndax c'est vrai waaw waaw ba tax na kon nag ñaan rekk fi des nga defee kenn ku nekk ñaan la nga mën a ñaan yàlla pare na démb gis nga léeg-léeg wolof wax baat waaye nan da lay ca xaqiqa daf lay reeloo xaw na ma dal léegi bi ma duggee ci jàkk ji dama dugg defuma taxiyatul masjid dama gis ñëpp di sëgg gis gi pour def taxiyatul masjid te comme man liñ ma jàngal mooy at taxiyatu lillah jàngal ko taxiyaat ba ci sama xol jox ko waaw jàkk ji seddu ci waaye bu ma ko joxee jàkk ci taxaw ma ba xam ndax dina ko nangu moom wala déet te moom moo fi bàyyi jàkk ji moo tax lu mat a bàyyi xel moo tax wala léeg mu léegu ne la kuy jaay ba takkusaan di jot da ngay wàññi sa lu tax ñu ni la bu tàkkusaan day jot waaj ñëw seen njëg xanaa xamuloo guddi du teer looloo tax bu la wàññiloo sa njëg def lay fontoo rek guddi du ker wala bu dee kerit keru leneen la parce ñetti keraam te lu jara xam la moo tax ko gisee yeneen ci bi di wax nangam koo ko def yàlla dina la teral te keram ga nga xam ne bu beneen ker du am bu dul bopp mu boobu ker ban la parce que foofu chance am fa te alam tara ila rabbika kayfa matta dhill ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وتعمل نتودك الظل الممدود فكيف مدك jeex bu dee bu guddi nag moom lañu tudd tudd ak dillul mawsuufu bi sujud waaw parce que jant taxul mu nekk li mu nekk xaqiqa boppam la تتفوه يتفيأ ظلالها الليالة وخير ها ذات اليمين وذات الشمال سجدا لله ها moo tax boobu ñu tudde ko ak dhill al mansuufu bi sujud bu dee ker yi nga xam ne nag dand ko fi bàyyi ñu tudde ko ak dhillul mamduud mais bi ci gën a yéeme mooy bi ñu tuddee ak dëllul mustaqim te mooy bu fajar dee jeex ba suba di dugg si te jant génnagul te guddi jeex na jaarate lëndëm lëndëm su ndaw soosu nga xam guddi def ko te jant génne ko جول فا جلي أجول جنا أنت يوتيوب تكونا أقل المستقيم ما تحنا كن يوم نيكو بيا لبيني ما يتحنا دي أمر مواردس سد بس كيال دخي سد بريوريتي لما تحمل ما تلي لي تيجي دف كريتيك تنيك صح fekk donte borom xam-xam nga fekk dëgg rëcc boo tey loo tuuti rek doo def critique parce que moom lañu laaj ci wàllu sunu borom ci jëfanteem ak Moussa lu tax mu mu jiital saxara bi ci alwax yi

une situation avec les décomptes. Il y a des moments où nous devons changer de situation, avec les Nous décomptes. fait fekk Firaw nous di fa ni nit Nous duñu tala jaamu ni nit ñi duñu tala jaamu تكون فرعون قوة ميبتي سحر لفتك مي فلا يالا جوخ موسى سحر بو اوب دولة بصم بور مو اليمينيكو بور بنو اسرائيل ام جام مانا جامو سين بروم مانا جام متخ سحر با موم غاردوكو بور فتا يالا daf ko garde ndax xam ni faraayna yi du ñu jeex moo tax ba mu paree nag ba mu wóor ko ni ku koy kuy nekk obstacle nekkatu fi ci la ko yàlla soo ko jox naka naan ne fuupa pour jox ko alwaax waaye ci biir alwaax yi moo tax ñuy jaaxle ci benn façon pourquoi yàlla ni arrahman allama alquran ba noppi soog ni xalaqa al insan lu jara seet la arrahman allama alquran d'abord خلق الإنسان ensuite علمه البيان في سورة العلق من يقرأ باسم ربك الذي خلق jiital xalq bi dem ba ci ñaareelu aaya bi mu ne iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam contradiction boobu am ci ak suuratul rahman ak suuratul alaq bu ci ne foog nga xam contexte bi tax mu wax ko ban la parce que allama al quran bokkul ak bu wax boobu ñay yor programme ba ca kaw ñoom la ñuy initier ci alquran pour ñu xam ni ñuy jëfanteeg ñi koy def tax àllama alquran ba pare ñooñu لكنك خلق الانسان سنك علمه البيان بس كمان بدو البيان بدو كمان جارينيو يحنا موتاح نكتي بيه لولو فتبارك الله دارجي موي لولو رك بودي امي دارجي بودي امي daara jee bu ñu demee ci jàkka ja daara jee waaw fa tabarakallahu parce que xam nga bi ñu duggee ci jàkka ji am na góor gu doon woote sax naan dandu si leen dandu si leen dandu si leen waaye fekk na soxtu bi bu ñu liqaamee rek lay nekk farata mu ku ñëw rek togal fa nga njëkk a jot ndax bañ jéggat bi ndax al adabu ma allah loo tax ma dugg ci jàkk ji rek toog ci nga xam ni bu ma continuer ñëpp a continuer te fépp daara la waaw loo tax ma tok ci buntu bi waaw tabaarakallah nga xam ni nag nit di jaay ba ñëw ci kër yàlla war a xam sa bopp waaw waaw xam nga tabarakallahu naa xaaj Malick sax moo mujj ndeysaan mënatu koo muñ dañu xale que rek moo ngay nga nit ñi ni leen ndongo laa ngi ci daara ji ah. waaw laay ndeysaan mooy ko tax na tabarkalla lépp sutura yàlla la yàlla yàlla yokk sutura تبارك الله بارك يا جلاري يلا بنيت جريمة يلا يلا ولو نيت ظاهرا وباطنا مالني تبركنا اللي مبقى مي واخون تي دج بي جيك بارك ني وسنو غيسنو دج دج بو نان دج بي نيه واخين لا دج بو نيتون دج بي نيه لولو فوق ني دج كو بور خام لا فايرك ده فتولك يمال انو حليجي جا بمعنى يبار كالكشي يمشي اللي أقول لك البرو دي ملك الموت نيوي فور جلسي نيكو عمو دم بوك كتنو خول جاسا وانسيني يالا خريب دينا فات léeg-léeg xool ko ni ko ndax xarit bi yàkkamtee gis xaritam mu ni melekul mawti ay jëppoo pour wax la ñoom seen digg beneen affaire waaw ah, daa wóor melekul mawti ñëw ci kanam mu ni waa yow itam waxoon oh, daal la wala ngay ñëw na nga yëglu da nga ma bett mu ni ko yàlla xam na ni la dem waaw kañ kañ nga yëglu woon mën ko ñi nga daan àndal ku fi des ñi nga daan àndal ku fi des moo ko kenn mu lay xamal ni yëg yëglu na bu ma yóbboo ñi ci sa wet yëpp bu nga xam ne bu ma paree yaa ciy daal di rek summi daal yee daal di koy summi ànd moom ñu dem wax la ku nekk ak sa may yonent bi biñ koy jël si problème boobu moo posé wu parce que comme moom jibril la gën xaritoon ndax li yàlla yónni yëpp moom lay yónni ci moom moo tax bi malekul mawti di ñëw mu boole koog jibril ndax malekul mawti jël rooxu yonent bi diis na ci moom ba mu boole ko jibril waaye li ko jibril di miin miin ne du moom la ñu jox nag keroog pour mu jël rox bi ñu demee ba war ko jël te fekk Sayyidatuna Fatima mi ngi toog te bëggul bu roxam di rot Fatima fekke ko mu wut lu mu ko yónni rek pour mu absenté ndax mu ngi seen ni heure bi jot na te ñaar ñaa ngi taxaw di ko xaar mu yónni yónni lu ko rek mu dem mu def sii malakul mawti di dugg si jibril ni ko duma dugg suñ boppam waaw suñ boppam borom xaqiqa yi nee nañ keroog la ñu mës a gis arangoon bu génn ci nga xam ni moom ñii ne woon yonent bi doon nga xam ne ni ñooy nekkaat ca kaw ku nekkat la ne yàlla sédd waaw nga na kon nag li ci des rek mooy wekk sa bopp fa nga ku yàlla nattu dundam nu mu ko dundee dëgëralul yaakaaram ñëw am ku mu fekk koo xam ni lu mel ni li mu doon dundee moom moom lay dundee waaye fa ñu ko teg wër ko suul ñu tudd kilifaam ni dénk nañ ko kilifaam moom mi fekkee loolu te bokk ak moom lu ñuy dund daawul kilifa mu xool ci kaw rek ni yàlla awma kilifa de waaye bis ni kii tey sama kilifa ma ni gis nga wax la bu nga xam ni sore na ba mu parce que mooy li yonent bi waxoon ni bu kenn jàpp ni li nga defa lay yóbbu aljanna kenn ku ne mbaaxu yàlla rek ak yërmandeem nga am yaakaar ci moom mooy tax nga dugg aljanna waaw moo tax nag mag di sëg di ñaan yàlla bu yàlla tas yaakaar waaw kon yàlla bu yàlla tas yaakaar war ngeen la ñu ngi ko yëpp mu ngee guddi أنا حضرت الجمعة صحبنا جبنا وعملنا اللي حضر بدون وحنا رامنا لو حني نية بريك ما جامس ونيني دجال لور لما ورا دف نودف كورك لكي تجيب يا حد نبوي يكل فم كي يكل رانا كنا لينو نيانا سوالي سيجفل نيانا كوكوشي يلا كودا مو نيامو فاسر det gäller Jehenkidesen. Det gäller, det gäller Hadui. Det gäller Safar Jangori. te kenn ku ci nekk yàlla gën a dundal sa yaakaar te kenn ku ne yàlla may la dëgg googu ñu tudd yàlla may la ca ca la mu tollool moom wa tabarakallahu ñu ngi koy jaal bokk yëpp ñu ngi leen di koy masaw ndax moom koo am boo sañoon mu dund ak yow ay junne junne junne at ay tabarkalla ñu dund junne at ak ñu dund ñaari at ak yëpp yaakaar rek am solo yàlla bu yaakaar bi tas ay tabarkalla kon nag mu ngi guddi te it am na ñoo xam ne fu ñuy jëm dafa sore ah waxtaan nañu ak sëriñ waxtaan ak bokk yu baax yi ndax ku nekk la mu mérité miin nañu sax léegi ku def dëj jëmale ko ci benn bés waaye itam dafay am ñu nga xam ni la ca aju dafay bare te itam tabarkalla am na ñu bëgg a yegg si te xëy na fa ñu jóge dafa sore boo defee ñu may leen occasion nga xëy na dimanche ñu dajawaat pour def ko xëy na rek beneen ñaan mottali lu teel الإجابة يلا إن شاء الله الله يلا barke yonent bi bu dimanche ñu jéemaat rek fexe ba ñëw ñu bokk ko yéen def ko tabarkal ndax dama ko def ci jumm al mustarshidin wal mustarshidaat ndax dëkk bi seen dëkk la waaw ndax sëriñ bi moo tax mu tàmbalee ñun boobu mustarshidin amoon yàlla xam na ko waaw

loo tax ñu ñëwal suñu bopp ànd koog ñëpp te incha allah bu dimanche ñu ñëwaat ànd koog ñëpp dana ko yàlla moti ne yàlla fay ñëpp yiw ak tiyaabo ci tànk bu kenn am lu la جعلنكم kenn gis loo ragal kenn ku ne yàlla ci mbaaxam ak ci barke yonent bi yàlla la defal ci xayraat yi ak ci barakaat yi loo dem ba doyat sëkk loolu ci barke yonent bi ne loolu rek lañ doon joxe ci ay baat xanaa ba dimanche incha allah ñu dajewaat si yàlla ko yàlla matal ku ne jàng fatiha jàng benn liggéey la fi Quraysh جنة كان آية الكرسي جنة فلقي الناس جنة صلاة الفجر ولا صلاة على النبي ندمة من الكل هدية ينتهي صلى الله عليه وسلم جنون تكسانجي دي حضرة الجمعة تجي نيب تغليني كتير كتير كتير على إن شاء الله من الله تبارك الله

ಶಿರಪಿ سيد سيدي رجانا السلام عليكم bu jëf xam naa dañuy bàyyi suñu ndigaay rek waxoon ko mu sant la moom gërëm la dénkaata njaboot bi beesal dénkaat yi loolu dong moo tax ñuy wax mbokk ñëpp ne kontaan na di commencé ci ki nga xam ne mooy taw kër gi di jibi di boom këru naasi ba si boom këru ndey wali ba si boom këru ndey Christine Ibou Ndiaye nee na mi ngi ñëw léegi xam naa ah, yoon wi xat rek mais nee na mi ngi ñëw mais ñoom ñëpp bëgg nañu kontaan nañu ñaan yàlla yàlla nga egg fa mag ñi bëgg si sa barke baay sa barke maam njaboot yëpp bëgg nañu am na loo xam ne nag ku mu dalalul sa xel leneen moo too dal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 sëriñ bi ñoo ngi koy jiital ci nuyoo bi di ko ziyaara di ko wàcc ci wàccuwaayam ci daraje maamam Haj Malik si radiyallahu taala anhu eh, li ma bëggoon wax yëpp sax far ki wax na ko wax bi moom gudd gàtt rek mooy cant cant jëmale ko ci yow ñaanal la yàlla eh, taxawaay bi rafet na fa tabaarakallaahu famille bi yëpp kontaan nañu famille bi am di jàmm yeeg ñëpp kontaan nañu ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yal na la yàlla àggale fi nga bëgg àgg yàlla na la fa yàgg àggale ci barke yonent bi sallallahu alayhi